Simona Verbi Corona kini may panibig Magandang niya pulaidan Bakit ang imo andal Nanyo ang yakit kong jeff Corona delay mo'y pandemi Magandang niya pulaidan Febar bangit ak ngeen jëf mbokku déglukat yi ci teewlu bi ci rajo FM 93 point 0 ñu amaat tey mbégte euh, ñëwaat di waxtaan ak yéen ci seen émission yi nga xamante ni moom lañuy ñuy waxtaanee wàllum euh, migration. ci kaddu gi Ramatoulaye Diène di leen nuyu di leen jëfal di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi comme niñ ko waxee rek mbégte la amaat dalal fi yeneen invité niñ leen ko waxee woon euh, tey nag euh, ñu ñuy dalal moo di euh, Jacques Gnucky nekk Caritas en même temps membre bu Remidev Euh, ak euh, keneen mu di Cheikh Mbaw moom tamit euh, nekk membre ci Rewmi di réseau des étudiants pour la migration mm. donc émission yi ñuy am am ko ci yombalal fondation Rosa Luxembourg fas yéene waxtaanee ci wàllum Covid 19 bi nga xamante ni ci la ñu nekk waaye itam wàllum migration ndax entité yi ñu fi dalal tey jile ñoom ñaar ñëpp ci wàllum migration la ñuy yëngatu tey li ñuy waxtaanee nag mu nekk ponk bu am solo. moo di taxawaayu société civile bi ci doxalin bu mbas mi nga xamante ni ci la ñu nekk euh, jëm ci euh, protection maanaam sàmm ñi nga xamante ni rek moo di euh, émigré yi donc tey mu nekk ponk boo xamante ni moom la ñuy waxtaanee laata ñuy dugg ci point yi ñu dalal suñu gan yi nga xam ni tey ñoom lañ fi am Cheikh Mbaw ñu ngi lay nuyu

jërëjëf Cheikh kon nag euh, loolee mooy présentation bi nga xam ne doon na ko def euh, ñu dalal keneen ki mu di euh, Jacques Gnucky Jacques ñu ngi lay nuyu yow itam. maa leen di fay di kontaan tamit ci invitation bi bi ngeen ñu jagleel sama olof leerul noonu waaye naa jéem a exprimer wu li ma ko mënee. Mhm. waa tey dama fi teewal ñaari structure maanaam Remidev di mhm. réseau migration développement. Mhm. ak Caritas Dakar. précisément le point d'accueil pour les réfugiés et immigrés. Mm donc muy boîte boo xam ne ça fait vingt cinq ans ñuy liggéey ak euh, réfugiés yi. Mm -hmm. demandeurs d'asile yi. Mm-hmm. migrants yi de manière générale. Mm-hmm. bu ñu gën a ci. waxtaan bi ci ñu gën a joxe détail di remercier aussi sama. collègue bu ñu bokkal plateau bi. Mhm. ngeen bokk plateau bi bekku liggéey bi moo tax tey ñu dajale leen fii euh, ngeen di ay kuréel yoo xam ni mën nañ nit société civile ngeen nekk euh, waaye itam nekk ñoo xamante ni la ca gën a fës mooy ci domaine ba ñu gën a nekk muy wàllu migration comme ci seen présentation lu ñu dégg tey ñuy waxtaane wàllu mbas mi société civile bi euh, taxawaay bi nga xamante ni moom la war a am jëmale ko ci mbirum mbas meek émigré yi alors ñu gis ni euh, coow li bari na loolu bi mbas mi amee ak léegi euh, émigré yi ak immigré yi mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci wàllu migration de manière générale euh, kenn ku ci nekk yaa ngi jànkonteel ak jafe-jafe kon jafe-jafe yooyu su amee ñi nga xam itam ñoo leen di taxawal ni société civile bi nga xam ne ñoom dañoo tënku rek ci wax wàllu migration ñoom tam ñu ngi am ay jafe-jafe ndax mën nañoo xam euh, kuréel yi nga bokk mu mel ni euh, Caritas mu mel ni euh, Remidev ndax am na jafe-jafe yoo xam ne yëg ngeen ko ci biir mbas mi ak wàllu migration bi waaw di rafetlu question bi donc ku ne réfugié wala migrant de manière générale xam ci jafe-jafe lañu la ñu mës a dëkk waaw donc euh, suñu kuréel yi daanaka looloo tax ñu sànc leen lu mel ni Caritas ñëpp xam nañ ni ñi néew doole ñi xaw a ñàkk doole moo tax tey ñu samp Caritas pour jéem a réduire euh, écarts sociaux yi am donc ku ne réfugié ku migrant xam nañ ni souvent ay problèmes yu bëri la ñuy jànkoonte donc euh, ci problème yi mun nañ ci lim yu bëri mm-hmm. problème déjà côté administratif mm-hmm. côté santé. côté administratif côté santé. côté santé prise en charge médicale waaw. Mm-hmm. côté lu jëm ci subsistance maanaam mm-hmm. lekk logement ak yooyu. Mm-hmm. waaw loolu xam nañu problème yooyu. du réfugié dinañ ak migrants yi de manière générale. dina jànkonteel problème yi mel noonu. donc looloo waral euh, ñu sànc suñu kuréel gi tudd euh, point d'accueil pour les réfugiés immigrés. mais ci kaw loolu. Euh, ko xam Remidev aussi. xam ni dafa dajale euh, structure yu bëri association yu bëri maanaam mhm. association migrants yi ak mhm. association société civile bi tamit mhm. loolu yëpp pour mun a euh, taxaw ci bépp problème boo xam ne moom la migrant ou réfugié di jànkonteel waaw donc pour l'instant loolu laa ci mën a développer en mu ñëwaat ci nu mu gën a alors Cheikh dégg nga li nga xamante ne ni euh, moom la Jacques wax léegi euh, mu ne ñàkkul ay jafe-jafe yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy jànkonteel par rapport ak situation Covid bi maanaam ci doxalin gi am na loo xam ni société civile yi ñoo ngi koy jànkontee ndax gis nañ ne xëy na euh, ñi nga xamante ne ni euh, ñoo di ñëpp day kuréel yëngu ci wàllu migration ñu ngi koy joytu mu mel ni daal muy euh, immigré yi wala émigré yi ñëpp rek ci seen fànn boo ko xoolee am nañ ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund ndax yéen ñi leen di taxawal yëg ngeen jafe-jafe yooyu waaw comme nu ko Jacques waxee tout sànq je pense que jafe-jafe yi moom ñun ñoo koy dund ñoo koy dund jafe-jafe yi bu baax donte que ñoo ngi demee ak suñuy les moyens du bord ñoo ngi demee ak les moyens du bord ñoo ngi fexe nu ñu xam ne ñi nga xam ne dañoo lésé wu ils sont lésés par la euh, par par par par par kii bi euh, confinement bi ñoo ngi leen ciy jéem a taxaw bu baax. Mm-hmm. donte état bi mënul def lépp. ñun mm-hmm. au moins ñun ñoo ngi leen ciy taxawu ci benn fànn bi. Mm-hmm. donc boo waxee loolu ça veut dire que ñoom jànkonteel nañ ak jafe-jafe yoo xam ne yu metti na rawatina ci jamono ji nga xamante ni nii mooy confinement bi nga xam ni euh, dundu nañ ko mu nekk lu metti loolu si bien sûr parce que euh, jafe-jafe yi ñoo ngi immigré yi am na ci ñoo xam ne Remi jot na dem envers eux Remi mhm. dem na jot na dem envers eux pour waxtaan ak ñoom xool seen i jafe-jafe ñu ngi leen ci taxawee mhm. am na sax am na yoo xam ne ay euh, immigré lañ yoo xam ne France lañ jóge woon ñëwoon fii nii pour benn court séjour mhm. bu ñu ñëwee ci court séjour bi tombé ñi mbas mi mhm. léegi nag ñi tëj frontières yi ñu bloqué xamatuñ lan la def léegi nag bu ñu contacté euh, ci suñu plateforme bi dañ leen euh, expliquer comment procéder pour nga xam ne danañ mën a génn ci jafe-jafe yooyu ba delluwaat seen dëkk normalement donc day nekk loo xamante ni day am solo loolu kenn ku ci nekk taxawaay ba nga xam ni moom euh, moomee nga nekk nga def ci la nga xam ni moom la ñuy xaarandi ñi ñuy soog a teewlu mën nañ ñu am ci 93 euh, point 0 Afia FM ñuy waxtaanee wàllum mbas nekk euh, société civile bi yëngu ci wàllu migration ban taxawaay lañ ci war a am wala ci doxalin gilan moo ci nekk seen taxawaay donc mën nañu am aussi en direct ci internet bi bu ñu defee Afia donc mënoo suivre li nga xamante ni mooy émission bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci yombalalu fondation Rosa Luxembourg lëkkaloo ci ak kuréel gi nga xamante ni mooy réseau des étudiants pour la migration alors Jacques dañuy ñëwaat ci benn ponk rek dégg nañ li nga xamante ni Cheikh mi ngi koy wax léegi ndax gestion bi nga xamante ni maanaam doxalin ji ci wàllu mbas mi bari na ci ñoo xamante ni soit ñu ngi jugee bitim réew nekk fii ci réew mi cité na léegi un exemple ñoo xam ne dañ fi ñëwoon ci séjour bu gàtt ah ñëw yëf yi fekk leen fi donc ñu dund loo xam ne lu metti la woon est-ce que jëloon nañ ay matuwaay parce que kenn waajul yëf yi dafa bette donc kon ñooñu dafa nekk ci jafe-jafe yu metti yoo xamante ni moom la ñu dundee am na ñoo xam ne ñu ngi woon aussi ci seen fin de séjour war dellu ku ne xam na ni tey jii ah moodu moodu bu jigee bitim réew ñëw ci réew mi bu demee ba euh, toll ci période bi nga xam ne moom la séjour am di jeex kooku ay poche am dara dootu ca nekk Euh, te mu nekk benn chef de famille donc mu war a toogaat ay weer yoo xam ne defaat na ko ci dëkk bi nekk ay jafe-jafe te loolu yëpp ñu ngi naan am na ay ndimbal yu ñu yëkkati fii jàppale ñi jàppale ñee donc doxalin bi nga xam ne moom lañ am ci Covid bi jëm ci wàllum migrants yi euh, naka nga ko gisee yow. waaw man dama gis ne déjà Covid bi daa am lu bëri lu mu révélé ci fànn yu bëri. Mhm. maanaam boo jëlee côté social. am suñu euh, tey suñu structure sociaux yi wane nañu taxawuñu ñu préparé wu ñu pour faire face à situation pandémie yu mel ni tey covid bi wane na dëkk yu gënoon lu ñu jaakaar ñoo gën ñoo ëppoon doole tey wane nañ seen faiblesse waxatuma la dëkk yu mel ni suñ dëkk bi Sénégal donc euh, jafe te dañ ne la bett mën la donc instant yi difficulté ñuy rencontré yëpp dinañu duñ ci am duñ ci pexe parce que surprise dafa surprendre ñëpp dafa surprendre ñëpp donc euh, mais ñun au niveau de de la Caritas yàgg nañ taxaw réfugiés yi bien que problème bi xawoon nañu bett tuuti mais yàgg nañ yàgg nañ leen taxaw ci mhm. problème yëpp ñu mës a am mhm. maanaam di yëngu ci côté santé mhm. di yëngu ci côté prise en charge alimentaire ak di leen jàppale ci logement mais bi ñu demee bi mbas bi egsee donc structure yu bëri gis nañ dañu tëj Mm-hmm. waaw donc réfugiés yi seen cas day gën a wala migrants yi de manière générale seen cas day gën a compliqué mm-hmm. mais taxul ñun dañ ne bu ñu tëjee duñ leen mën a jàppale comme il se doit mm-hmm. donc moo waraloon ñu bàyyi ñëpp continuer liggéey bi wàññi personnel bi mais bàyyi fa benn équipe restreinte boo xam ne mooy mën continuer accueillir pers nit ñu di leen jéem a jàppale pour ñuy dem mën a dem faju ji beneen fànn bi gis nañ ñu bëri dañ amoon problème pour wàllum lekk donc dañu obligé def ay kit alimentaire yoo xam ne dañuy déplacé wu si seen koñ ne leen bu leen ñëw suñu bureau mais ku nekk na joxe adresse am bu ko defee ñu déplacé wu fekk si leen fi ngeen nekk mhm. mën leen jox un peu de de de vivre mhm. ñan ñi si amoon problème logement tamit fexe nañu répertorier ci ñan mhm. ñoo xam ne jot nañ leen jàppale gaa comme ni ñu wax euh, comme préparer wuñ ci affaire bi bett nañu mënuñu woon def. Euh, au delà de li ñu jot a def. fu mu hmm, toll nii waaw looloo waraloon ci biir Remidev. Mhm. ñu doon préparer benn projet boo xam ne dinañu mën tamit en plus de état bi di def. Mhm. dinañ mën a apporter suñu contribution bu gën a fës. Mhm. ci jàppale leen ci wàllum dund ak yooyu. parce que souvent lu ñuy gis euh, migré émigré yi. nit ñi dañ leen di fàtte léeg-léeg. waaw mën nañ ñëw ci distribution bi. damay dégg sax ñeen ñi ne. koñ bi ma nekk joxe nañu fii waaye man joxuñu ma parce que voilà donc mhm. de ce fait mhm. ñun dañ suñu taxawaay moo waroon gën a mhm. gestu ci côté boobu mën a jàppale les les les les émigrés yoo xam ne ñu ngi suñu biir pas seulement sénégalais yu jógee extérieur ñibbi si mais tamit étranger yuy dund suñu biir waa yooyu jar nañu bàyyi xel ci action yi ñuy mener au sein de la mm, communauté foofu doguma la parce que semaine passée ci biir émission maa ngi koy wax maa ngi naan xëy na ñun suñu quartier exemple boobu laay joxe parce que maa ngi témoin des faits euh, da ngay gis ñoo xamante ni euh, suñu ay naataangoo lañ nekk fii ci sous région bi alors nekk fii ci Sénégal mu leer la ni am na seen njaboot yoo xamante ni ñoom beneen nationalité lañ mais boo xoolee seen njaboot yëpp daanaka Sénégal fi leen juddoo fi leen yaroo fi leen màggee fanweeri at fanweeri at ak juróom ñeen fukki at donc mu doon seen njaboot mais bu séddale bi jotee dafa am beneen taxawaay boo xam ni moom lañ ci doon te pourtant ñooñu dañoo jógee bitim réew ñëw ci suñu réew comme ñun ni ñu suñu ay doom jógewee ci suñu réew dem ci seeni réew yooyu noonu donc taxawaay boobu defee naa yéen société civile bi am na leneen loo xamante ni da leen cee war exactement moo tax rek boobu ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ciy taxaw parce que mm. Caritas moom daanaka tëjul ñu mm. structure yu bëri mais ñun à notre niveau quand parce que dañu xamoon ni ponk bu impo am importance la à not niveau. suñ ko mhm. suñ ko suñu tëjoon rek dina andi yeneen jafe-jafe. Mhm. ci loo xam ne moom la ñuy jagleel euh, réfugiés yi. effectivement waaw donc mhm. ak ak Remidev rek réflexion baa ngi continuer pour mën a gën a taxawu émigré yu nekk suñu biir. alors Cheikh Mbaw yéen aussi de votre niveau am na lenn loo xamante ni xëy na ci biir bi mbas mi amee ak léegi ah, jóg ngeen ko taxawee ko comme sànq yaa ngi koy xaw a junj sori woo ci jëmale ko ci ñi nga xamante ni nii euh, comme comme nuñ ko cité wee sànq ay nit yoo xam ci biir réew mi euh, que ñu nekk ay ay immigré yoo xamante ni euh, gis nañ leen fii ci biir réew wala ay immigré même. waaw mhm. comme bon ci cas boobu noonu Rewmi moo ngi ci taxawaayam moo ngi daal di sensibiliser. loolu moo ngi sensibiliser di di di leen saytu aussi di saytu ci xool seen nekkin fii biir Sénégal parce que comme ni nga ko waxee tout à l'heure euh, mesure de résilience yi nga xam ne état bi teg na ko dañ dañ leen ci xaw a un peu mettre à l'écart waaw je ne sais pas si c'est c'est pas systématique c'est pas mm-hmm. systématique mais dañu xaw a mettre à l'écart donc ñi nga xam ne séddale bi dañuy priorité dañuy def en priorité ñi nga xam ne ñoom ñu ci biir dëkk bi ñi nga xam ne mm-hmm. fi lañ juddoo mm-hmm. ñoom la ñuy prioriser de telle sorte léegi remi moom day dem saytu ñi nga xam ne mettre nañ leen en l'écart ñu mhm. jéem a def benn fond parce que ñoo ngi euh, ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi waaj benn fond fond bu nga xam ne benn mhm. fond de résilience envers cette communauté bi mhm. nga xam ne dañu xaw un peu marginalisé ci mesure de résilience bu état bi ndax jamono bi nekk na situation boo xamante ni metti na waaye rawatina si ñi nga xamante ni ni ñoo nekk ci secteur ci wàllu migration bi que ça soit ñu ñëw que ça ñu nekk fi féete féetu donc day nekk loo xamante ni dafay am solo ngir ñu bàyyi leen ci xel euh, bu ñu seetloo itam xëy na am na am na ay action yoo xam ne mettre woon ngeen ko en œuvre euh, ci biir mbas mi bi nga xamante ni dugg na ak léegi ci biir ci biir réew mi waaw mbas bi bu mu tàmbalee ba léegi mm-hmm. euh, en collaboration ak fondation Rosa Luxembourg maa ngi saluer de passage madame Rama madame euh, Fatou Faye mhm. nga xam ne moom mooy chef de projet bi mhm. nga xam ne moom mu ñu accompagner euh, souvent ci yenn projet ñu ñuy jot mhm. euh, ci ci ci ci ci mbas bu mu tàmbali ba léegi commencé nañ dem benn sensibilisation maanaam dem nañ ci immi immigré yi ak ak ak émigré yi nga xam ne ñibbisi nañ nga xam ne dañ leen xaw a marginalisé woon tamit bi ñu ñibbisee fii Sénégal di leen taw parce que am na feebar bi nga xam ne mu jógee ci bitim réew numéro un bi mhm. waaw léegi nag ñooñu ñoom demoon nañ leen seeti def benn vidéo reportage si ñoom mhm. ñu waxtaan expliqué ñu seeni i jafe-jafe ak li ñuy bi ñi ñibbisee effectivement ñoo ngi tamit def ci ay euh, sensibilisation mhm. sensibilisation euh, via les réseaux sociaux di sensibiliser euh, population bi maanaam ci les mesures barrières yi nga xam ne war nañ ko jël pour mën a mucc ci mbas mi Mhm. Euh, ci cadre boobu noonu dégg naa li nga xam ne moom moom nga wax loolu mooy rôle société civile bi comme niñ koy xaaree léegi nañ léegi Jacques également ñëw na ci euh, ci yenn ci ay ponk euh, hormis ça lan moo war a nekk au delà je veux lan moo war a nekk yéen seen taxawaay yéen nga xam ne yéen a yow société civile di xeexal migrants yi nekk seen i porte parole nekk ay volontaire engagé wu di leen xeexal matin midi soir bu weesuwee loolu ndax yaakaarul ni war na mën a am lu gën a yaatu xeex boobu ngeen di xeex ndax su fekkee sànq comme sa naataango bi Jacques lu mu ko waxee xëy na am na loo xamante ni ñoom ñu ngi ko doon jëfee am na loo xam ne c'est pas organisé au niveau national je veux dire et même au-delà au niveau international am na loo xam ne waa juñu ko programmer wuñ ko yaakaaroon ni am na yeneen taxawaay yu ñu war a mën a gën a taxawee pour à à l'avenir ñu mën a xam à chaque fois kenn ku ci nekk lan mooy cëram lan mooy rôlam lan mooy responsabilité am bu ñu mën a dugg donc je pense que euh, nu ko waxeet aussi loolu loolu tamit xalaat nañ ci waa Rewmi xalaat nañ ci parce que euh, dañoo seetlu ne société civile bi dañoo dem ba dem de façon un peu éparpillée mhm. ku nekk dafa dem ci côté ku nekk moo ngi xeex daal mbas mi ci côté mhm. mais ci li ñuy xalaat ñun ba jot ci waxtaan mooy maanaam bu ñu bu ñu créé woon benn benn synergie am mhm. benn synergie ñun ñëpp ci société civile bi mhm. nga xam ne ci li ñuy gën a am doole ci lañ li ñuy def ci lay gën a amee impact parce que euh, mu neewoo dem tamit suñu côté ñee dem seen côté impact bi je pense que population bi du ko sentir carrément peut-être que impact bi day day day xaw a euh, focaliser wu ci benn localité kese alors que bu ñu bu ñu bu ñu boole woon suñu doole impact bi mën na am benn ampleur bu gën a ah, nationale boo xam ne dinañ mën a gérer mbas mi mhm. te dinañ ci gis impact bu am solo boo xam ne ah, population bi ak euh, migrants yi dinañ ko yëg dinañ ci gis seen bopp Jacques par rapport ak question bi ma jox Cheikh léegi defe naa euh, nekk na loo xam ne bëgg nga ci bëgg nga ci indi tuuti ay kàddu waaw li mu wax dëgg la mhm. aujourd'hui y a tellement d'organisations yi liggéey ci wàllu migration mhm. mais c'est alors dispersé souvent dañuy gis sax loo xam ne les mêmes actions qui se répètent un peu partout mhm. donc loolu waraloon ñun au sein du Remidev mhm. gars yi dajale jéem a dajale fédéré association yu bëri mhm. donc boo xoolee biir Remidev ni mu tëddee dafa may association de terrain am association yoo xam ne spécialement ay affaire plaidoyer mooy seen liggéey ak des associations même des acteurs maanaam les migrants yi seen wàllu bopp ñoo xam ne dañ demoon ñu rapatrier leen ñoo xam ne ñu ngi fii di yëngu ci affaire migration la migration en ñoom si seen bopp ñuy bon ñu boole loolu yëpp pour jéem a am benn impact au niveau de action yi ñuy poser mm-hmm. donc ce qui fait que le Remidez chaque trois mois mm-hmm. daa am réunion yu ñuy teg pour mun a def benn planification mm-hmm. donc chaque trimestre sama collègue bi Kébé euh, moo moo war moo fi waroon teew maa ngi koy nuyoo passage di nuyu coordinatrice bi souvent ñooy organiser réunion bi woo les différents membres de du Remidev ñooñu ñëw di xalaat ci les questions qui intéressent la population migrante. Mm-hmm. waaw donc pour actes yooyu la ñuy poser souvent. Mm-hmm. donc bu yaakaar naa bu association yi yëpp organisé wu en de grands groupes. Mm-hmm. je que ci lañuy ñuy gën am kàddu. te genre wu événement yi bu ñëwee duñu bett. tey peut-être mbas mi la. suba mën na nekk beneen situation. parce que réfugiés yi euh, pardon migrants yi ñu ngi traversé problème yu bëri mhm. mbas mi je crois que benn kii rek la révélé benn ponk mhm. mais am na yeneen question yoo xam ne ñu ngi ci biir yoo xam ne benn nit mënu ko gérer mhm. parce que pour faire un plaidoyer il faut ngeen nekk benn ensemble waaw comme ni ko wolof di waxee di xàccandoo di dóorandoo te mboolo mooy doole voilà donc je pense que bu ñu continuer ci sens boobu c'est pour rejoindre rek moo sama sama naataango bi dinañu am benn impact bu positif quoi. Mhm. waaw euh, alors ci lancé boobu également yéen société civile bi comme ni nga ko waxee ci biir Remidev am na pàcc boo xamante ne ñi plaidoyer ñi action ñi terrain kenn ku ci nekk li nga xamante ni moom ngay jëfee alors ci wàllum plaidoyer également est-ce que am na euh, euh, jéego yoo xam ne ñoom commencé nañu ko jóg par rapport ak la situation. parce que lii aussi ça nécessite vraiment à ce que ñu porter plaidoyer mu nekk loo xamante ni migrants yi de manière war nañ ci mën a gis seen waa mooy li ma doon wax rek y' a pas plus de deux semaines. Mhm. nañu benn réunion. Euh, benn webinaire ak euh, les différents membres du Remidef. Mhm. donc après ci question yooyu lañ doon xalaat. te wax naa ca njalbeen ni am na benn projet bu ndaw bu ñu préparé woon. entre mhm. Caritas ak Remidef. c' était pour ñëw en appoint. ci appui bi état bi di joxe. tout en nous disant que peut-être que ñëpp ñu jot ci ndimbal boobu. donc c' en réflexion ñoragul. mais ñu ngi ciy xalaat. donc c'est pour war la rek ya a une certaine synergie bu nekk ci ginnaaw mhm. pour mun a intervenir ci wàllu mbas mi mhm. mais en parallèle ñun ñu ngi ci action yi déjà on est à six campagnes de distribution mhm. yoo xam ne on a touché au moins cinq à euh, vingt cinq à trente familles ak des individuels ona aussi distribué nañu ay masque ay comment on appelle ay kit ay mm-hmm. kit kit d'hygiène eau de javel mm-hmm. gel hydroalcoolique mm-hmm. tout ça un peu pour contribuer dimbali suñu suñu frères et sœurs euh, les migrants ñu ñëw suñu biir nekk na lu am solo Cheikh Mbow ñu gis beneen fànn bi euh, ñoo xamante ni ça c'est des organisations ñoo xam ni dañuy jug dem dimbali jënguur gi te mu leer leen ni société civile bi nga xamante ni ñu ngi xeexal migrants yi ñu ngi fi mu leer leen ni nguur gi nga xamante ni tey jii moo war a xeexal migrant en fet xeex bi muy def war na contribuer jëm ci migrant yi euh, mais li ñuy seetlu mooy societé civile bi nga xamante ni mooy taxaw di xeexal migrant yi xëy na néew doole mu ngi fi bëgg a def euh, mënoo def lépp day des fois et pourtant dañuy gis organisation ñu ñëw di soutenir nguur gi te soutien boobu ñuy defal nguur gi xëy na du migrant yëpp ñoo ci am possibilité pour jot ci ci cadre boobu aussi defe naa nekk na loo xam ne touché na leen yéen aussi waaw bien sûr bien sûr parce que ci fànn boobu tamit euh, je pense que état bi état bi moom moo ngi def benn rôlam ci benn côté mhm. organisation yi bu ñu euh, yenn organisation yi sax mhm. am ne organisation yi nga xam ne yu bëri mën nañ leen euh, citer ñoo ngi jaar ci société civile bi loo mhm. xam ne pour xam ne foofu lay gën a amee impact vu que état moo ngi def benn côté ci ci kii bi moo ngi def wàllam ci liggéey bi ñoom aussi ñoo ngi jaar ci société civile bi pour mën a mën Ah, indi seen seen seen seen seen seen dimbal seen apport foofu noonu mhm. euh, ñu ki par rapport ak situation boobu aussi def naa yéen aussi euh, nekk na loo xam ne yéen a ko constaté ndoo ensemble la waaw waaw euh, niveau boobu tamit du association yëpp mhm. ñoo mën a yor titre tey société civile effectivement voilà mais malheureusement ñëpp la ñuy def ci société civile mhm. je crois que à ce niveau aussi il faudrait que ñu taxaw xool kan mooy société civile. Mhm. ak kan mooy mbuboo mhm. euh, société civile mhm. je pense que différence boobu lañu ñu war a njëkk def sinon au au fil de temps on risque de euh, duñu amati crédit quoi au sein des populations ñuy jàppale voilà donc on risque de diluer les forces mais wax cher par exemple des organisations yoo xamante ni wala ay fondations ñu jóg au ñu ñëw appuyer euh, les organisations yi nekk ci société civile di xeexal migrants yi wala taxawal migrants yi wala porter voix migrants yi wala nekk ay volontaire jëm ci migrants yi mais li ñuy gis mooy dañuy dem jàppale état goo xamante ni moom ndimbalam xëy na na mu koy defee c'est pas bien organisé ba nga xam ne migrants yeeg jafe yi immigré yi immigré yi ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp effectivement effectivement waaw côté boobu mooy bon ci ci ci société civile bi nu muy présenté wala ko tamit parce que euh, bu jële yenn organisation yu mag yi mm-hmm. foog ñu gis benn sec certaine structuration bi am ci mhm, mhm. organisation société civile bi mhm. pour def ci seen xaalis wala pour liggéey ak ñoom donc bu fekkee société civile bi en tant que tel amul amul carrière boobu taxawul comme nuñ ko waree wanewul xaru kanam bi mu war a am c'est vrai que euh, organisme yu mag ils vont préférer liggéey ak état bi que di liggéey ak euh, société yi société civile donc kon yéen combat bi dafa am leneen loo xamante ni war na leen ci Cheikh mu ngi ci bëgg a ñëwaat am na leneen loo xamante ni war na leen ci mooy société civile bi ban taxawaay ngeen war am nan ngeen war a joxantee loxo nan ngeen war a euh, defee seen force commune communier seen force ba war a mun a permettre à que ku ñëw xam fan la war a jaar ngir mun fa jaar Cheikh. waaw moom euh, comme ni nga ko waxee sànq euh, je pense ONG ak fondation yi. ñoom ñoo ngi def seen ñoo ngi ciy def seen wàll. Mm-hmm. ñoo xam ne ñoo ngi jaar directement ci ci population bi. Mm-hmm. comme ni ko fondation Rose Luxembourg defee. Mm-hmm. moom dafa jaar directement ci ci nga xam ne société civile bi mu mu mu leen di dimbale ci sensibilisation. bi ci ci maanaam ci ci ci. appui bi ci appui ñoom ci am na ñoo am na yeneen ah, organisation yoo xam ne ñoo ngi ci dimbale tamit société civile ci maanaam ci ay kit alimentaire. ou bien ci ay ah, kit matériel yu nga xam ne mi maanaam ay gel ak ay. Euh, li nga xam ne daal matuwaay yi nga xam ne dañ koy jël pour les mesures barrières mhm. ñoom ñoo ngi ciy appuyer en société civile lu baax mhm. mhm. alors ñu fàttali ñi nga xam ne ñu ngi sew ga teewlu yeneen ci Afia FM 93 point 0 Euh, di teewlu seen émission yi nga xamante ni wàllum migration la ñuy wax jëmale ko ak ci mbas mi ñu am ko rek ci yombalalu fondation Rosalie Luxembourg jaar ca loxoy euh, réseau des étudiants pour la migration te nag ñu fi dalal réseau des étudiants pour la migration ci teewaayu Cheikh Mbow ak ki nga xamante ni moo di ñu Ñuki bokk ci Caritas Dakar nekk membre ci Remidev moom itam nekk beneen kuréel goo xamante ni euh, ci wàllum migration ak développement dañuy yëngatu li euh, Jacques wax sànq yow itam nga wax ko maanaam Jacques suma suma su ma dañuy ne kon xëy na société civile bi moo war beneen taxawaay société civile bi nga xamante ni ñooy xeexal migrants yi ñoo nekk porte parole migrants yi ñoo nekk les volontaires jëm ci migrants yi ñoo nekk ñoo nekk ñoo nekk maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk euh, point en commun muy migrants yi donc kon ñooñu kon war nañ a defaraat seen taxawaay parce que euh, cas bii muy mbas mi benn la ci mais mbas mi day weesu bari na yeneen ponk yeneen point yeneen jafe-jafe yoo xamante ni ah migrants yi ñu ngi koy dund te mu war a am nu ngeen war a taxawee yéen pour loolu ñu mën ko saafara effectivement effectivement comme ni ñu wax rek mbooloo mooy doole tant que amuñu taxawaay boobu mobiliser wu comme un seule personne mhm. defe naa yaakaar ma dinañu egg dinañu egg stade boobu mhm. te les plus grands perdants migrants yi lay doon mhm. waaw parce que ñun ñoo leen war a taxawal ñoom kenn amuñu possibilité boobu taxaw euh, wax loo xam ne moo nekk ci ñoom mhm. waaw mais en société civile bi nag ñëpp xamee nañ leen euh, benn une certaine force donc mhm. ñoom ñoo war a mën a jël problème mu migrants yi porter ko au plus haut niveau pour ñu mën a saafara seen i seen i jafe-jafe mhm. mbas mi dina jàll wax nga ko mais am na tamit yeneen problème côté administratif waaw bugguma ci dugg mais y tellement de problèmes yoo xam ne waaw ñun mi nekk ci milieu bi tamit waaw je pense que je pense que c'est le moment ñu waxtaane ko ba nga xamante ni nii gannaaw mbas mi yéen a ngi ciy jël ay jéego yéen a ngi jël seen i matuwaay yéen a ngi xool comment faire pour mën a vraiment régler la situation c'est le moment ñu wax aussi yeneen problème yi nga xamante ni mu ngi ci biir migrants yi di ko jànkonteel te bu mbas mi demee dina ko fi bàyyi ba nga xam ni xëy na mbas mi day jeex mu nekk ay point yoo xam ne dañu jóg pour saafara ko exactement mooy par problème kayit yi mhm. ñoo xam ne dinañ fi def ay ati at yoo xam ne kenn du leen du leen régulariser mhm. ma jëlee kaaw réfugiés immigrants yi mhm. waaw nañ déposer ay documents yoo xam ne voilà des années des années du mës a am suite mhm. donc souvent ay prorogation la et voilà wala mu am loi yoo xam ne sax des fois dinañ ko teg application bi ba léegi wala duñ ko mettre en vigueur loolu yëpp nekk ay jafe-jafe te yéen a ngi koy xeex defe na exactement am na ci ñoo xam ne tamit li ñu yor seen i carte mais carte yoo xam ne c'est pas autorité ñoo ko joxe mais c'est pas reconnu par euh, yeneen structure publique yi mhm. donc juste pour souligner ces problèmes mhm. am na ñoo xam ne tamit euh, côté sociale euh, tant que amoo yenn statut yi doo bénéficier yenn soutien yi mhm. voilà donc euh, juste pour nous arrêter la ñoo ñu la Caritas ñoo xam ne ils sont pas pris en compte par structure yi leen war a jël en charge parce que faute de document souvent ñoom la ñuy jël je prends l'exemple des demandeurs d'asile ak yooyu di leen jéem a appuyer ci fànn yëpp ça veut dire que amagoo kayit kenn warul taxaw parce que avec après tout c'est un être humain donc ñun moo tax ñuy taxaw pour jàppale leen au moins le temps ñuy am euh, document boo xam ne moo leen di permettre euh, ñu am reconnaissance bi ñu war am au niveau au niveau au niveau national day nekk lu am solo donc Cheikh aussi par rapport ak protection immigré yi euh, doxalinu mbas mi gis nañ ko sànq ba léegi ñu koy soulever nekk ay points yoo xamante ni ñu ngi ciy dugg euh, doxalin bi nga xamante ni maanaam mooy gestion bi euh, doxalin googu noonu def naa yéen taxawaay bi ngeen ci waroon taxaw yaa ngi koy énumérer sànq ak léegi mais ñàkkul ni am na yeneen ponk yoo xamante ni comme ni ma ko waxee bu ñu poussé tuuti dina gën a bari dina gën a yaatu dina gën a taxaw te xëy na mbas mi nii dafa wane point yu bari yoo xamante ni soit ay ay ay ponk la yu ñu waroon saafara yu ñu waroon mën a lijjanti mais malheureusement ba léegi gis nañ ni ba fu ñu toll ni amul migrant yi wala émigré yi loo xamante ni ni yëg nañ ko seen bopp ci doxalinu mbas googu. waaye tout à fait euh, je pense que bien avant Euh, maanaam mbas mi. Mhm. Euh, Rewmi mu ngi ci doon dox bu baax maanaam ci problème yi nga xam ne migrants yi ñoo ngi ko doon jànkonteel. Mhm. je que lii nii daa am mbas bi dafa ñëw am ak mbetteel. Mhm. moo tax tamit il faut nga maanaam ci adapté wu ci ci maanaam problème boobu ba pare jëm ci saafara mais je pense que le problème est profond sur la question de la migration mhm. euh, maanaam seen nekkin mhm. seen nekkin ak seen sécurité ak seen euh, seen nekkin socio-économique mhm. maanaam ci biir dëkk bi nga xam ne moom moo leen di moo leen di accueillir souvent ça pose tout le temps problème soo xoolee ba ci euh, maanaam séddale yi nga xam ne Euh, kit alimentaire yi nga xam ne moo ngi moo ngi am ci biir dëkk bi. Mhm. on a mis a l'écart carrément presque euh, les les les immigrés qui sont ici au au Sénégal et qui vivent ici y des gens qui ñu nga xam ne maanaam daal fii lañ juddoo. Mhm. yeroo fi mais maanaam seen parents dañoo nekkoon beneen nationalité. Mhm. léegi nag bon loolu dañ leen ciy xaw a marginaliser. ba nga xam ne affaire bi ñoom li ñu ci war jot duñ ko duñ ko ci jot. carrément alors que ñoom ci population bi lañ bokk maanaam ci ci ci gox lañ bokk. parce que dëkk bi on fi la ñuy fayee seen impôt fayee seen taxe fi la ñuy dund mhm. maanaam dëkk bi tamit am na en retour loo xam ne euh, war na leen ko war na ko kii maanaam ci loolu daal réew mi daal moo ngi ciy dox bu baax a baax mhm. moo ngi nekk ci instance euh, ci ci ci ci ci ci ci ay article ñoo ngi bind ay article di def ay émission di dem ci di leen euh, nemmeeku loolu yëpp pour taxaw leen ba pare porter seen voix. Mhm. Euh, xëy na bokk na ci loolu li ko war a saafara comme Caritas xëy na Remidev defalin boo xamante ni amoon nañu ko mooy ci ay kit nekk ci hormis ça lan mooy nekk yéen seen rôle par rapport ak loolu. maanaam seen rôle bu weesuwee euh, appui boobu noonu mu wax léegi léegi dalal bi baax na ci conscientiser leen sensibilisation mais lan ngeen ci waroon taxawaayee tamit leneen loo xamante ni xëy na dina mën a saafara manquement boobu wala vide boobu. waaw sànq sax maa koy jot a wax ci euh, sànq maa ngi koy jox mais maanaam suñu taxawaay su fekkee ñun kese dañ ko def de façon éparpillée du am benn impact. Mm-hmm. il faut que société civile bi. am nu mu boole nu mu boolee seen doole mhm. maanaam gën a porter seen voix pare di dimbali leen taxawu leen ci mel yenn kii parce que ñoo ngi doon def benn collecte de fonds mhm. collecte de fonds bo nga xam ne ñoo euh, mais ñoo ngi ko bëgg a mhm. nga xam ne pour nga xam ne pour dimbali euh, migrants yi nga migrants yi dimbali leen taxaw taxawu leen ndax day nekk oui parce que tey état bi am na convention yu bëri yoo xam ne signé na ko. Mhm. pour taxawu euh, migrants yi de manière générale. Mhm. waaw mais ci doxalin bi dañuy gis ni toujours am na loo xam ne dafa des. waaw donc am na application bi yaa ngi koy wax sànq. Mhm. am na lu bëri loo xam ne dafa des. donc loolu bokk na ci problème yoo xam ne bu weesoo mbaas mi. je crois que combat bi war na mën a continuer côté boobu. pour gën a yee nit ñi ñaax euh, suñu autorités yi. ñu jël ci ay matuwaay yoo xam ne dina mën a jàppale kayit boo ko amul wala boo nekku ci say droit tamit euh, daanaka yow. Euh, doom pratiquement voilà donc benn nekkoo ci yoon boo nekkul ci sa ci li nga xam ne moom la la yoon sant rek nekkoo ci yoon je crois que ci loolu mm. la ñu war a euh, njëkk commencer effectivement ak lépp lu laal subsistance mm-hmm. parce que ñun ñi ci nekk tamit xam nañu mm-hmm. parce qu'on voit gis nañu tamit ñoo xam ne bu dul structure yu mel ni ñun ak ñeneen ñu ci yëngu mm-hmm. franchement du ñu doon am loo xam ne dina leen dimbali ba ñu si bañ si mën a dund ay ay ati at quoi waaw donc euh, loolu c'est des problèmes yoo xam ne vraiment euh, c'est crucial maa ngi liir benn euh, document bu waa organisation mondiale contre la torture du kii ñu ngi souligner ni ci mbas mi migrants yu bëri ci yeneen dëkk yi ñu ngi am ay problèmes yu metti effectivement am ñoo xam ne son sont bloqués entre deux villes ñenn ñi nekk ci camp yoo xam ne c'est c'est très difficile ils sont laissés en rade ils sont même ci con euh, virus bi mhm. ñii ñu ngi ñu ngi leen di expulsé ci logement yi ñu occupé woon parce que mhm. xam nga sans activité yow mënoo def dara waaw ak yeneen yeneen yeneen problème ñu ngi mhm. sax invité autorité yi état yi ñu gën a bàyyi xel ci population migrante boobu waaw euh, mais loolu Jacques aussi buñ ko waxee defe naa dañuy dugg ci ponk euh, ñàkk nekk ci yoon bi ñu waxee sànq maanaam nekk ci dëkk amoo fay këyit loolu moom daa mel ni nekkoo ca dëkk ba de ndax kenn du la considéré. effectivement donc kon yéen bokk na ci seen xeex fexe ba yombalal leen ay kayit nekk loo xam ne farata lay doon nekk priorité lay doon balaa leneen ak leneen di ñëw. effectivement ci cadre bi tout ce qui est plaidoyer lépp loo xam ne laal na migrant daal. Mhm. ñu ci ñu ngi ciy gëstu. Mhm. xool nan lañ ciy mënee taxaw. pour mhm. interpeller les autorités. donc Remidev mu ngi def veille. di def alerte mhm. waaw di di di sensibiliser tamit di former membre association bi pour ñu gën a am taxawaay euh, mhm. ci cadre protection migrants yi ak ak accompagnement bu ñu leen war a jox. waaw bu ñu waxee aussi foofu comme ni nga daanelee protection wu migrants yi mm-hmm. euh, te ñu gis ni am na am na migrants yoo xamante ni euh, maanaam ñu jël yoonu suuf bi surtout sax ñooñu la ñuy wax jamono bi ñoom ñu ngi jëloon yoonu suuf bi soit nekk ci ay dëkk yoo xamante ni ñu ngi fii ci réewu Afrique yi yeggaguñu Europe yeggaguñu bitim réew te jamonoy mbas mi nekk nañ ci conditions yu difficile parce que par exemple boo jëlee le cas de yi nekk à Libye. ah ñooñu seen cas jamono ji nekk na loo xam ne lu doy waar la est-ce que nekk na point yoo leen bàyyi xel aussi effectivement point ñu bàyyi xel la point point ñu bàyyi xel la mais personnellement au niveau de la Caritas mhm. foofu amuñu ay migrants yoo xam ne jóge nañ ci dëkk yooyu par contre am nañu ay sénégalais yoo xam ne dañuy ñibbisi mhm. waaw am tamit ay projet yoo xam ne ñu ngi ko bëgg développé mhm. mais du duñu am moyen yoo xam ne doy na pour ñu mën a gérer situation yooyu. mais ñi soloon seen dàll nekk ci yoon bi maanaam dem ba Libi ñu jàpp leen ko soit ñu ci ay prison wala ñu ngay libi di liggéey amaguñu dara di jéem fexe na nañuy dajalee pour am lu leen mën a génnee euh, libi googu yóbbu leen Europe wala ñoom doon nañ jéem a lijjantiku ba nekk Maroc ne ci ay coono xam nga ñooñu c'est des migrants yoo xamante ni tey ak mbas mi bu amee ñoom tamit ñu ñu ex ñu exposé wu lañ par rapport ak virus bi ñoo xamante ni soit parfois même c'est des gens sans abri amuñu fu ñu ne amuñu fu ñu dëkk ñu nekk ay ay ay migrants ngir munoon bëggoon dem beneen dëkk malheureusement mbas bi ñooñu itam bu ñu waxee ñi ne fii ah euh, ñooñu itam war nañ leen mën a wax parce que ñoom tam seen condition jamono ji yéen am na lu ngeen ci waroon mën a def. effectivement bon liñ ci mën a def mooy peut-être euh, alerter. Mhm. autorités yi. Mhm. waaw parce que comme instant yi yoon yi ubbiwuñu ak yooyu. Mhm. alerter rek la ñu mën a def bu ñu amee cas yu concret yoo xam ne tegu suñu loxo. mën nañu interpeller ki ñu war a interpeller ne ko situation bi war nga ci bàyyi xel. waaw. parce que am na cas ci cadre mi def am na cas yoo xam ne ñu ngi ñu i Espagne. Mm-hmm. ñu ngi jéegoon yenn problème. on a souligné ça au sein du réseau. Mm-hmm. waxtaan nañ ci suñu biir am na yeneen situation yoo xam ne tamit. Mm-hmm. chaque fois ñu ngi ciy wax ñun. loolu mooy premier lu ñu gis rek loo xam ne laal na euh, migrants yi. dañuy interpeller ki ñu war a interpeller. waaw. alors Cheikh euh, la même question c'est-à-dire migrants yi nga xamante ni ñu ngi doon jéem a daw ngir génn réew mi dem Europe xëy na daw ngeen ba ba ba ba wala ngeen daw ba ba ak feneen ak feneen ci ay dëkk yoo xamante ni Maroc wala feneen ak feneen yoo xamante ni génnaguñu Afrique ñu ngi yaakaar ni jege nañu Europe malheureusement euh, situation bi ex egsi dal ci seen kaw defe naa ñooñ tamit euh, ñi nga xamante ni ñoo jël kàddu migrant yi di leen waxal di leen jëfal di leen dooleel di leen jàppale am na loo xamante ni war nañ ko mën a xalaat ci ñooñu. waaw dëgg la comme nu ko Jacques bu waxee sànq je pense que loolu cas yu cas yu cas yooyu noonu cas yooyu en général su fekkee am na nga xam ne cas yu extrême yooyu c'est une extrême urgence yooyu dañuy alerter c'est-à-dire que il faut alerter à qui de droit c'est-à-dire que état bi euh, pour mu jël ci ay matuwaayam effectivement mu jël ci ay matuwaayam pour mën a delloo si maanaam ay ay ay ay doomi réewam mhm. ñu mën a nekk en en sécurité mhm. parce que tamit loolu loolu loolu loolu dafa dafa doy waar mhm. maanaam ngay dim di densité pour ñi nga kale foofu après ñu réduire la en ah, esclavage ah, ah, c'est c'est quelque très délicat donc bon suñu voix nag suñu suñu doole eggul ci maanaam pour mën a intervenir lu ñu mën mooy porter seeni voix maanaam Euh, waxal leen waxal leen pour ñu dégg defal leen plaidoyer pour mm-hmm. euh, maanaam état bi dégg leen pour mm-hmm. mën leen a génne ci situation yu extrême yooyu noonu mm-hmm. mais est-ce que attiré ngeen attention wu état parce que cas yooyu dafa nekk yoo xamante ni yu am la maanaam ñoo xam ne ñu ngi doon jéema génn réew mi di dem bitim réew par yam ca beneen réew mbas mi dab leen fa ñu toog fa te ñu ngi ci ay jafe-jafe jamono ji parce que bu fekkente ne ñi nekk fii ci Sénégal tey jii ah, dëkk ci kër mu leer la ni ñii fi lañ dëkk ñoo ñëw mën a am jafe ah ñuy séddale xëy na lu mel ni ceeb wala diwlin di leen romb di leen tëb massa ak ki nga xamante ni xëy na xëy na da doon daw ba yegg si fi daal di taxaw am lu ko fi tënk amu fi tur amu fi sant amu fi kër amu fi lu dul maanaam nekk ci ci ci ay jafe-jafe kon defe naa alerte waroon na jamono ji ñu toll. si effectivement alerte boobu noonu maanaam ni koy defee mooy maanaam di di di di di di def seen plaidoyer ni ñu koy mën a defee mooy maanaam. dem ci à titre droit comme ni nga ko waxee ci mhm. ministère bi nga xam ne moom moo en chargé wu ci ci ci ci ci maanaam nekkinu sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi extérieur mhm. dem su euh, soumettre leen doléance bi ne mhm. leen lii mooy problème bi ak lii mooy lii mooy problème bi bu fekkee nag déggewuñu ko nag d'une bonne oreille déggewuñu ko noonu maanaam def ñu ci réaction dinañ def euh, euh, ni ñu koy waxatee sax dinañ dinañ ko tas ci xibaar bi maanaam ñi xam ne kat sénégalais am na sénégalais yu dund lii fii nii te état Sénégal moo ngi ci te amul lu ci ci dox loolu mhm. la ñu a def pour pour mën a benn sursaut d'orgueil bi nga xam ne ñoom après danañ mën a intervenir mhm. Euh, day nekk loo xam ne am na solo kon ñi ñuy soog a ñu ngi ci Afia FM 93 point 0 di teewlu seen émission bi nga xamante ni rek mu ngi wax ci wàllu migration ak ci mbas mi nga xam ne mu ngi wéy di am ci àdduna wërngël këpp mi eh, émigré yi lan lañ leen war a taxawoo ngir aar leen euh, ñu ciy dalal tey waa Remidev euh, Jacques Ñuki moo leen fi teewal ak réseau des étudiants pour la migration Cheikh Mbow moom moo leen fi teewal ñu am émission bi ci yombalalu fondation Rosa Luxembourg di li nga xamante ni rek mooy waxtaan bi ci 93 point 0 ak ci li nga xam ne moo di internet bi en direct ci Afia euh, donc euh, ñu ki euh, par rapport ak loolu aussi defe naa sànq ñu ngi koy wax mooy par rapport ak les autres points yoo xamante ni ay difficultés la migrants yi di ko dund lan nga yaakaar ni tey suñu weesoo mi suñu weesoo mbas mii nii mu nekk point yoo xamante ni gannaaw ay jàngat ak li ngeen gis li ngeen gis ci terrain bi li ngeen dégg ci journaux yi li dégg ci actualité yëpp mu nekk jafe-jafe yoo xamante ni ak ay témoignages yi même yoo xam ne parfois recueillir ngeen ko euh, li ngeen di si terrain bi lan ngeen jàpp ni xëy na farata la farata urgence la moom itam ni bu mbas mi rombee rek lii faaw ñu saafara ko ngir ëllëg migrants yi mën a nekk dans dans des yoo xam ne waxuma yu baax lay nekk dina jafe mais dina tane. waaw côté boobu euh, peut-être intervenir ci ñaari point mm-hmm. peut benn bi mooy. Euh, def prévention ñu on n'est pas pour euh, peut-être bloquer gars ñeeg yooyu mm, mm, mm. mais peut-être yee askan wi ci yenn difficulté yoo xam ne ñi ñi mën nañ ko jànkonteel bi ñu génnee mm-hmm. donc état bi tamit war na mën a pour ñoo xam ne ñu ngi fii dem nañ bu ñëw mm-hmm. ñu mën leen tax bu baax a baax ñu am activité yoo xam ne dinañ ko mën a développer fii au niveau au niveau national créer tamit ay emploi yoo xam ne jeunes yi dinañ ci mën a yëngu mais ku bu amee tamit koo xam ne dafa jóg bëgg a dem tamit ñu faciliter ko nan lañ koy faciliter. Mhm. parce que instant yi circuit yi ñi ñuy war a jaar yëpp souvent day day am ay blocage yoo xam ne mooy pousse ñu jël yeneen voie mhm. donc bu ñu leen yombalalee voie yoo xam ne moo leen di permettre ñu jël yoon bi voyager légalement mhm. je crois que loolu dina xaw a réduire tuuti tamit bu amee ñu dem ba yegg yegg fenn nekk ci ay jafe-jafe suñu représentation yi nekk foofu diplomatique yi war nañ di mën a intervenir tamit pour jéem a xool situation bi de près xool lan lañ ci mën a def pour suñ seen citoyen yu nekk foofu boo jëlee yeneen concitoyen yeneen dëkk yi fu ñu mënti dem bu ñu fa amee problème seen état yi souvent ñooy intervenir dañuy réagir mais su à notre niveau c'est comme si loolu amu fa dañuy gis benn léthargie boo xam ne mooy daw à à ce niveau donc société civile bi souvent mooy obligé mhm. interpeller wax kaas dugg fi génn fee pour nit ñi mën a jël problème boobu en en considération mhm. donc loolu tamit benn euh, jafe-jafe la boo xam ne suñu autorité yi tam war nañ ci jàppale bu baax a baax a mhm, baax mhm, donc mun na loolu loolu nga yaakaar ne rek nekk na ay pon yoo xam ne bu ñu génnee ci mbas mi rek bu ñu war a taxawal directement urgence lay doon euh, Cheikh Mbaw euh, réalisé ngeen benn vidéo boo xam ne film la ngeen ngeen tourné ko jëm ci cadre de sensibilisation ñaax askan bi yeete conscientiser et ci biir vidéo yi xëy na ñàkkul ni génn na ci ay concours maanaam jafe-jafe yoo xam ne yéen itam gis ngeen ni urgence la ngir ñu war ko mën a saafara bu ñu rombee mbas mi waaw ci biir euh, reportage bi jànko gis nañ ci euh, problème yu nga xam ne yu bëri soulevé nañ ko mhm. maanaam ci ci côté migrant yi gis nañ ci ñoo xam ne seen njaboot yi buñu leen bu ñu leen confiné ba ba léegi mhm. jusqu'à présent ba balaa ñu leen di confiné ba bu ñu leen confiné ñoom ñoo ngi toog liggéeyuñu te di ah, maanaam euh, seen seen famille fii ñoo ngi ñoo ngi dépendre ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi foofu noonu à l'extérieur di liggéey di leen a envoyé ñoo ngi dépendre ci loolu donc loolu bu ñu ko amul donc euh, day am benn benn benn benn benn kii benn situation bu metti mu nga mm-hmm. xam ne famille bi da koy jànkonteel mm-hmm. en même temps aussi ñi nga xam ne ñoo ngi dem nañ à l'extérieur ñi nga xam ne dem nañ jàngi dem nañ euh, jàngi ñi ñi ñi nga xam ne tamit instant bi ñoo ngi leen di confiné aussi ñoom tamit seen am nañ problème yi nga xam ne fii ni mm-hmm. jël pour seen famille mën leen a dimbali foofu noonu mm-hmm. je pense que yooyu noonu yëpp ay problème yu nga xam ne euh, jot nañ ko prendre en compte mm-hmm. euh, pour pour pour pour pour waaw pour dans l' avenir ñi nga xam ne nanuy mën a jëlee seen i revendication ou bien nga xam ne lu mel noonu bu leen dalatee tamit danañ ko dinañ am xam ne mesure d'accompagnement danañ ko am envers ñoom. Mhm. Euh, kon daal euh, de manière générale li ngeen constaté ci ci ci wàllum Covid bi ak euh, migrants yi seen dundin gis ngeen ni lépp difficulté la wala am na point yoo xamante ni xëy na ñoom laalu leen wala jaaxalu leen ak yooyu. je pense que la majeure partie lépp difficulté la ci problème bi ak ci Covid 19 bi. Mhm. maanaam presque mën nañ ne lépp difficulté la ñi nga xam ne ñoo fii aussi. la même chose nga xam ne ñoo ngi à l'extérieur ñoo ñoo ngi foofu c'est-à-dire que puis problème la bi nga xam ne euh, mën nañ ne kenn prendre ko woon en compte ampleur bi ak impact bi nga xam ne am na ko ci àdduna bi mhm. dafa jéggi dayo mhm. donc euh, maanaam loolu kenn du ko bàyyi woon xel mhm. bàyyi ko woon xel donc bu ñëwee frappé la day am day day du neex a gérer mais tant bien que léegi am nañ benn expérience buñ ci am nga xam ne à l'avenir danañ xool yan matuwaay la ñuy jël pour ces cas de situation ou bien mhm. parce que ñu ki boo déggee Cheikh lu mu wax ñàkkul am na ñoo xamante ni woon ñu nga bitim réew weer wu dee ñu naan yónnee seen kër ñu fay ndox fay courant fay dund fay ñenn ñi seen jàng fay nangam ak nangam ak nangam te boo seetluwee bi euh, mbas mi amee ak léegi nekk nañ réaction boo xamante ni dafa amatul si afoon amatul ci diggante euh, moodu moodu ya amatul seen digganteek seen waaye kër kon mu nekk loo xamante ni lu metti la. effectivement parce que situation ñëpp la ñëpp la euh, laa leen ah. ñëpp mhm. ñëpp ñëpp ñëpp waaw ñi doon liggéey am na ñoo xam ne sont retrouvés avec de salaires partiels mhm. am na ñoo xam ne seen liggéey carrément dafa yàqu mhm. donc li dal sénégalais yi daanaka ñi nekk ñi nekkul extérieur di góorgóorlu di yónnee seen njaboot fii pratiquement moo leen dal donc crise euh, bu laal ñëpp la au même moment voilà donc euh, muy situation boo xam ne c'est c'est c'est très très très très très difficile très difficile donc lu ñu seetlu tamit fan yi mooy euh, ci mbas mi mooy de plus en plus dëkk yu bëri ku nekk dafa doon dafa commencé woon tëju mhm. di jéem a ressources yu mu am mu jéem ko gérer pour waa dëkkam effectivement loolu je crois que war na nekk benn leçon bu ñuy jàng mhm. au niveau international pour mhm. dëkk yi suñu dëkk yi mën fu mu toll nii di samp ay ay affaires yoo xam ne ay structures yoo xam ne mooy tax tamit mu mën a dundal seen dëkk en cas de crise paaka ngay xaar keneen di la ñëw en appoint mais yow à partir de ses ressources ses propres ressources nga jëm ko nga jéem a gérer sa situation mm-hmm. au niveau interne waajal sa bopp sa bopp mm-hmm. exactement mm-hmm. exactement parce que imaginons bu crise bi gënoon métti li ñu ah, ñun ñooñu ñëpp yuuxu ah. waaw parce que lépp feneen lañ ko doon jëlee di ko andi donc ce qui wane na fragilité carrément suñu état yi tey au niveau économique au niveau politique au niveau sanitaire je crois que tey leçon bi société civile non jàng ci mhm. situation actuelle mhm. mooy loolu mhm. mooy que dañu war a teg ay structure yoo xam ne ay projet yoo xam ne dina mun a tenir Sénégal en cas de crise mais bu ñu continuer nii je crois que voilà euh, ne ma la bu bereen mbas ñëwaatee ça risque ñaanuñu ko nag mais ça risque day empiré wu voilà c' est très très très difficile <laughs> te loolu souvent mooy andi ay problèmes uh-huh. au niveau de la population uh-huh. après voilà mu jur yeneen ak yeneen. waaw nañ fi yàlla musal ñun Sénégal lool lool lool laal la ñuy ñaanee. loolu la ñuy waaw ba nga xamante ni lépp lu ñëw rek mais bu ñu saafaree ba pare dañ naan yàlla buñ ko gisati mais defe naa. le plus souvent liy mooy ñu jël li nga xamante ni mooy les devants. teg ko ba nga xamante ni situation bu mën a ñëw contexte bu mën a ñëw dañuy dund ak moom comme ni ñu mujjee nii ci mbas maanaam dund avec le virus xëy na am na lu ñu doon taxawee su ñëwee rek dañuy dund ak moom. dañu daan ne euh, gouverner c'est c'est prévoir <laughs> exactement je pense que leçon boobu war nañ ko mettre en pratique kenn ku ci nekk fa nga nekk exactement nga mel ni rek kuy gouverner nga war di prévoir saa su ne leneen li mooy ci volet économie gis nañu ni également ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy ñu génn nekk bitim réew euh, bokk na ci lu ñuy participer lu baree baree bari ay milliards et des milliards yoo xam ni dañu koy dugal ci réew mi ak mu ci jot ba nga xamante ni nii ñuy tam suñu réew mi dinañ yëg loolu benn côté euh, euh, également defe naa war nañ mën a xalaat ne ñu koy saafarawee exactement man dafa di loo xam ne ça m'a personnellement touché solidarité bi ma gis mhm. sénégalais yi manifesté ko mhm. ñëpp a jóg taxaw nekk benn nit mhm. euh, pour faire face au Covid donc ce qui veut dire que souvent daa am loo xam ne dañ ci attardé wu alors que c'est pas l'essentiel mais Covid bi war nañu euh, que war nañu mën a dépasser yu bëri am na affaire yoo xam ne yaakaaroon nañ mënuñu ko je prends benn exemple bu ndaw taalibe yi nit ñi di wax non mënuñu leen noonu def nit ñi bi ak yooyu. Mhm. mais bi période bi ñëwee. solution lañ trouvé effect euh, ci ci benn délai bu ndaw. Mhm. mobilisation bi sénégalais yi génnee ci xaalis. Mhm. man je n'imaginais pas que ci benn court période bu ndaw. dinañu am mobilisation boobu. alors pourquoi mun ñu maintenir loolu. même pas en dehors du Covid mun ñu maintenir loolu pour. am benn fonds boo xam ne ñu ñun dinañ ko jéem a mettre en place. pour di gérer yenn situation yi parce que. avant Covid bi am na ñu doon dund situation yu métti. Mhm. dégg nañ fi hôpitaux yu yu nekk ci jafe-jafe. nga dégg benn dëkk ndox amu fa. Mhm. tout ça peut pourquoi pas ñoom fond boo xam ne s'il y a des problèmes comme ça c'est vrai que rôle état bi la mais am na nu ñuy organiser woo tamit fond boobu mun na nekk benn fond boo xam ne dina jàppale. nit ñi pour régler pas mal de solu de problème au niveau au niveau national. au niveau national. day nekk loo xam ne am na solo ñu kii defe naa Cheikh euh, li nga xam ne moom la ñu jagleeloon ci waxtu euh, jeex na deux minutes moo ñu desee euh, alors mu nekk kàddu yoo xamante ne xëy na yéen waa Rewmi yéen a koy jógee yéen a ngi koy taxawoo moom ngeen fagaroo moom ngeen aaroo même nan ngeen nar a li nga xamante ne moo des ci mbas mi. li des ci match bi ñun ñoo ngi continuer. naam naan xamuñu kañ lay jeex. xamuñu kañ lay jeex waaw xam nga nee nañ nañ dund ak moom. <laughs> waaw nañ ak moom li li nga xam ne moo si des daal mm-hmm. maanaam ñoo ngi continuer ci suñu lancé. Mm-hmm. maanaam ñoo ngi sensibiliser. Mm-hmm. ñoo ngi recueillir les informations auprès des migrants. di taxaw yenn immigré yi mhm. je pense que ci lancé boobu la ñuy continuer mhm. ba maanaam ba ba ba ba ba mu jóge fii mhm, incha allah incha euh, donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw merci Rama euh, oui Jean waaw man dans la même lancé que moom mais di invité rek euh, ñëpp ñuy yëngu ci wàllu migration ñu gën a bàyyi xel population boobu bañ di fàtte te population sénégalaise bi tamit wàññi stigmatisation ci yeneen cas ñuy am. Mhm. parce que ça n'aide pas résoudre le problème. waaw du nuyu nag ñëpp ñoo xam ne permettre nañu ma ñëw muy sama responsable Aloïs mhm. Sarr sama collègue yi. ak waa Remi Def tamit euh, coordinatrice bi ak monsieur Kébé yëpp. Mhm. waaw ak ñëpp ñoo xam ne yéen waa AFIA tamit ñu jar a gërëm ngeen parce que dañu ñu jox permettre ñu exprimer wu. partager tamit euh, as tuut lu ñu xam ci wàllu migration partager tamit liggéey bu ñuy defar. effectivement am na solo nekk na loo xamante ni lu am solo la. waa Cheikh pour pour tàggatoo maa ngi remercier maa ngi leen remercier Afia FM. nga xam ne mhm. euh, ñoo tamit ñu accessible la ñi nga xam ne ñoo ngi dimbali tamit ñoo ngi ñuy permettre ñuy def suñu plaidoyer euh, à partir des émissions nit ñi di ko dégg. Mhm. di xam maanaam société civile bi ak Rewmi maanaam la mooy seen taxawaay ci Covid 19 bi. Mhm. di remercier aussi waa Rewmi. Euh, di leen nuyu ñoom ñëpp di teg nuyoo bi ci loxo président bi Abdou Khadre Mbengue mhm. nga xam ne tamit moom mu ngi ciy def liggéey bu am solo waaw di remercier aussi euh, la fondation euh, Rosa Luxembourg di teg bi ci loxo madame fato Faye moom tamit mu ci taxawaay taxawaay bu am solo mhm. ci ci taxawaay gestion en pandémie bi mhm. jërëjëf mbaw euh, Mbow mbokk ci réseau des étudiants pour la migration jëfal également Jacques Ndiouki euh, tey ñoom lañ fi doon dalal ñu waxtaanee taxawaay société civile bi ci ndoxalin bu Covid 19 bi jëm ci aar ñi nga xamante ni ñoo di yi euh, ñoom lañ fi doon dalal tey émission bi ngeen ko doon teewlu ci rajo Afia FM. 93 point 0 amoon ci yombalalu fondation Rosa Luxembourg ak ci loxoy euh, réseau des étudiants pour la migration ci kàddu gi Ramatoulaye Diène moo ci nekkoon di leen jaajëfal bu baax euh, di leen jox euh, dig daje euh, beneen àjjuma beneen thème ak yeneen i invité waxtaan toujours ci wàllum mbas mi ak émigré yi di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo tëdd ci mbas mi ci àdduna wërngal këpp yàlla fëgg seen bopp ñu jug ak jàmm mbas mi nga xam ni moo fi ne itam yàlla na fi jógee jóge ci àdduna bi yëpp waaye itam ñi nga xam ne ñoo di migrants yi également lépp loo xam ni combat la bu ñuy mënee a jëmale ko ci ñoom ñu am ci ay résultats yoo xamante ni rek dina satisfaisant donc ñu ngi jaajëfal ñëpp ci teewlu bi ji leen jox dig daje beneen àjjuma jërë ngeen jëf ngeen wéyandi ak programme rajo Afia FM. feebar baa ngi ak li mu àndal dalay faat waaw